salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Ansoumana Ndione nekk président de l' association sénégalaise pour le suivi et l' association assam malades mentaux ASAM Ansoumana Ndione ñoo ngi lay nuyu di la dalal fii ci Sénégal bàyyi la nga nuyoog suñu mbokku internet yi. maa ngi leen di fay euh, Cheikh Kandé di am mbégte wuy si seen invitation bi. Euh, di nuyu internetu Sénégal yëpp euh, vraiment di am mbégte euh, bu mag ñëw teew fii tey jii wuy seen invitation bi. bon laataa noo tàmbalee émission bi man dinaa njëkkee di la tooñ Sénégal fii yaa dàq bind journaliste yi sax du dangay bind article. <laughs> waaw loolu moom dëgg la dafa fekk ne bind dafa bokk ci luy faj dafay exutoire la dafay dafay dindi stress maanaam bind gi may bind. Euh, dafay mel ni papier bi moo may déglu may génnee li nekk sama biir xol loolu nag moo may tax sama xel tranquille ma mën a tëdd nelaw suma xol féex loolu bokk na si li may gën a bind ndaxte euh, suma xol neexul ci réew mi ni muy doxee euh, ci fànn yu bari te nag à chaque fois pour gën a soulager suma bopp pour que nit ñi gën cee bàyyi xel également pour que réew mi gën a jëm kanam Euh, tax may bind parce que xam naa ne su ma bind euh, président Macky Sall ci boppam daf koy déglu ak kilifa yu bëri ci réew mi. d'accord seetlu ñu tamit euh, daanaka bés bu nekk dangay ngay kii di Abdoulaye Diouf Sarr xaw ma ndax attaque lañ ko mën a tuddee xaw ma yow ban appréhension nga ci am lu waral loolu. waaw luy sa problème bi nekk sa diggante ak Abdoulaye Diouf damay fàttali ne Abdoulaye Diouf Sarr d'abord sama mag la sama xarit la teg. man maa ko bëggal sama bopp moom aussi mu am ci man mbëggeel bu ëpp sax comme ni ma ko bëggee ku ma fonk la nag waaye ci mbirum ñu amee feebaru xel ñun xamuñu kan moo nekk ci bopp ministre de la santé euh, damay wax naan euh, sama sama wéyjur bu góor walla bu jigéen walla sama sëriñ sax walla sama xarit ku mun ci doon bu nekkee ministère de la santé comme ministre te jubluwul ci mbir mi ñu amee feebaru xel ñun man sama cër en tant que njiitu asam mooy mooy jàkkaarloo ak moom xam ne kii kat noonu la te noon moom da ngay janoo ak moom te sax euh, du sax noonoo da ki ki la naan sangul sa taar la bëgg hmm. bu ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr tey mooy ministre de la santé ñu gis ne moom dafa war a taxaw ñu am feebaru xel te defu ko ñun bu ñu taxawee di ko ko fàttali dafa war am mbégte sax daw dimbali ñu amee feebaru xel ndaxte moom président Macky Sall daf ko wóolu dénk ko ministère de la santé te ci biir ministère de la santé ñu amee feeburu xel dañ ci am cër bu am solo ndaxte bopp moo féete kaw bopp moo gën am solo Sénégal nag ñu amee feebaru xel si lim foo ko natt weesu na ko te ministre Abdoulaye Diouf Sarr ba fii may wax ak yéen yi jëmu ci dara kon nag loolu moo waral. Euh, euh, euh, ñuy jàkkaarloo ak moom attaqué wuñ ko déedéet dañ koy rek xëcc dañ koy poñe pour que liggéey bi nga xam ni moom moo ko war mu def ko kon ñun ñooy ay xaritam ñun ñooy ay mbokkam parce que sa mbokk moo lay wax dëgg Alioune Badara Cissé ma koy jàll Sénégal gi yëpp ku ne xam na ne xaritu Macky Sall la waaye nit ñi liñ gis sax mooy dëggantaan noonam la waaye nag xarit gi moo gën a wóor moo gën a wér Macky Sall xam na ne Alioune Badara Cissé xaytam la man Ansoumana Dione man noonu lay doxalee wax naa ko Abdoulaye Diouf Sarr sama gémmiñ ak noppam bi bi mu ñëwee ma ne ko ah bu def nàng su suñ diggante du neex de mënu ma ci naka ma ne ko jàpp naa ne du neex parce que sama xarit nga gaa te man sama xarit dama koy sonal parce que sama yéene mooy mu am ndam sama yéene mooy président Macky Sall bëgg ci moom sama yéene mooy Abdoulaye Diouf Sarr ba ñu ne Sénégal de mi ngi toppatoo ay doomam yi amee feebaru xel jaar ci Abdoulaye jaar ci Abdoulaye Diouf Sarr te loolu ba léegi nekkul moom bi muy ñëw au la santé lettre bi moo ñu ko bind di ma félicité ak di ma ci gërëm ñun ñoo ko dalal wan ko ne ko ñun dañoo bëgg si li nga ñëw ci lettre bi mi ngi ci mi mi ngi ciy leeral ne euh, dina ànd ak ñun liggéey liggéey bi lettre bi ñu ngi ko signé le 15 octobre le 5 octobre 2017. le 5 octobre 2017 le objet lettre de remerciement Abdoulaye Diouf Sarr moo may remercier man Ansoumana Dione signé ko ci loxoom wax ne danañu ànd toppatoo ñu amee feebaru xel tey nous sommes en 2021 le 3 septembre 2021 ba fii may waxee ni ñu amee feebaru xel seen situation dara changé wu ci te moom ci boppam ba léegi jëm ci dara au contraire sax daanaka sax dafay bloqué suñu liggéey. waaw day bloqué seen liggéey. Euh, ñàkkul ne dans le cadre du combat que tu mènes pour les malaat mentaux am nga ci ay préoccupations fu mu toll nii ban mooy préoccupation bi nga xam ne moo gën a jàppandi. xam nga de en 2002 Abdoulaye Wade dafa ma recevoir au la République. Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade hmm. mu recevoir ma au ne ma lan nga bëgg boobu Awa Marie Coll Seck ma nekk ministre de la santé. mu recevoir ma ne ma lan nga bëgg ma ne ko président man de bëgg bëgguma dara lu dul nga tabaxal ma. fu ma fajee ñu am feebaru xel mu ne ma am nga terrain ma ne ko waaw am naa benn terrain mais dafa tuuti mu jël terrain bi 60 mètres sur 60 mu ne wax leen gouverneur mu jox ko 4 hectares. Hmm. en mill 2004 président Abdoulaye Wade tabaxal ñu centre bi centre baa ngi. lii ci ban dëkk la nekk lii ci à Kaolack. à Kaolack à Kaolack. centre ba taxaw na ba pare. centre bi mi ngi nii foto baa ngi. waaw la foto bi di wane. 800 millions la jël Abdoulaye Wade dugal ko ci centre bi ci 4 hectares. Hmm. léegi Awa Gueye Kébé ministre de la famille moo ko tabax ministère de la famille moo ko tabaxoon. yoon ministère de la santé. tabax bi nag malheureusement euh, ba 2012 ba ni Abdoulaye Wade demee tabax bi réceptionné wuñ ko en 2012 Macky Sall ñëw ñu boole santé ak action sociale bañ boolee santé ak action sociale ci la centre bi jógee ministère de la famille ñëw ministère la santé. Mm-hmm. Awa Marie Coll Seck dans son bureau mu ne ma en ce moment Awa Marie rek foofu nag la ma neexee. Mm-hmm. foofu laa ko bëggee foofu laa ko nawee. donte ne bëggut liñ bëgg parce que dafa xamal carrément ne en ce seen centre bi dinaa ko nangu seen loxo def ci lu ma neex dem leen ngeen dem toog mu ñu ne ko ah. nii la la ko waxee nii la ma ko waxee dans son bureau. mu ne dinaa nangu centre bi. def ci lu ñu neex. def ci lu ñu neex. yéen dem leen ngeen dem toog. après nangu na ko. nangu na ko. ñu def ci lan mu jël directeur. nommé ko fu foofu noonu parce que les psychiatres. temps boobu professeur Aïda la kon centre bi nii fu mu toll nii mu ngi fonctionné wala fonctionné wul centre bi mi ngi tëjee kenn nekku fa parce que li tax mu tëjee xam nga ñun bu fekkee ne aw Michael Seck dana woon ñu amee feebar xel lañu fay faj ñun duñu mais daf ne kenn doo faj ñu am feebar bu xel nekk ci bedd bi maanaam foofu dañ koy def annexe hôpital Sikati bu Thiaroye maanaam ñu am feebar bu xel hôpital Sikati bu Thiaroye faju ba wér la ñu yóbbu Kaolack ci centre bi ñu leen di jàngal fii naka la ñuy yaree ginaar fii waa Kaolack gis nañ ne avec aw Marie Coll Seck ay ginaar lañ. fi maanaam centre de rééducation de réinsertion des malades lañ ko bëgg a def après. voilà te loolu de réinsertion des maanaam boo amee feebaru xel ñu faj la caaro yi ba nga wér dañu lay dugal ci centre bi former la ci benn métier. justement alors que. Mhm. caaro yi moom ku fa génnee rek da ngay yibbi sa kër. Mhm. ñun suñu projet moo doon. mais loolu tamit baax na ba tey. moom lay wax nii. maanaam bu ñu la fajee ba nga wër waruñ la bàyyi ci kër gi nga dellu noonu. war nañ la mën a jàngal métier pour nga mën a indépendant. foofu foofu liggéeyu hôpital psychiatrique bu Caaroy la. Mm, mm, mm. ñun ba ñëwee. dañu bàyyi Caaroy dañu ne ñi am feebaru xel nekk si mbedd mi lañuy indi fii accueillir leen faj leen réinsérer leen ñu mën a dellu ci askan bi parce que boo jëlee malade mental. kon lan moo naroon wutale sa centre bi ak bi nga xam ne moom moo nekk Thiaroye justement c'est une excellente question hmm. parce que hôpital Thiaroye hôpital Fann Dalal Xel Thiès ba Fatick foofu ñi am xaalis ñoo fi yóbbu seen ay mbokk ñu faju ok léegi ñun ñu ne ñi nekk si mbedd bi ñun hmm. ñoo leen di indi fii waaw te du ñàkk mën na doon sax ñi ñi nga xam ne amuñu seen mbokk duñ fay dara lépp ñun ñoo ko jël en charge maanaam ñun fii dan la fiy dugal faj la ba nga wér ne sax booy génn fii sax sa kër bopp ngay dugg après amaana booy génne fii sa atelier tailleur ngay am amaana booy génne fii maanaam da ngay mënal sa bopp. Hmm. léegi nag loolu lañ ne mënul nekk ñu ne ñoom dañ fay def réinsertion te réinsertion ba balaa nga naan réinsertion balaa ngay réinsérer da ngay gis koo réinsérer comme gisuñu nag ku ñu réinsérer sant baa ngi ne ba fii may wax ak yow nii ma nga tëjee léegi nag ñun ASSAMM fii mooy suñu siège mu mënuñ si jot ñu amee feebaru xel ñu ci mbedd bi. Dakar Saint-Louis Kaolack ne xuus si dëkk bi te kenn mën na jël en charge. Hmm. Abdoulaye Diouf Sarr ba mu ñëwee réunion bi ñu njëkk def këyit yaa ngi fii këyitu centre yaa ngi fii. Hmm. bi mu ñëwee dafa xool këyitu centre bi mun nañu ah lii ma gis day lii ma gis këyit yi ma gis nii kuréel gii di asam moo moom centre bi. Hmm. këyit yaa ngi nii këyit këyit yaa ngi nii gis nga terrain bi ci lañ tabax. Euh, ci lañu tabax euh, centre bi mhm. kii mooy audience wu ak président Macky Sall mhm. dëgg ak président Ablaye Wade kii yëpp a ngi fii Ablaye Wade Sall bi mu xoolee kayit yi dans son bureau en 2017 devant le directeur général de l'action sociale devant son directeur de cabinet ñu fa nekk ñëpp mu ne leen day kër gi dañ ko delloo asam bu leen ko delloowee Abdoulaye Diouf Sarr may wax de mu ne ñu ñu dimbale leen accompagner leen parce que c' est pas avec les mains vides qu'ils vont s'occuper de ces malades mentaux mm-hmm. tey 2017 ba bi Covid bi ñëwee ma am réunion ak direction générale action sociale action sociale bind kayit Aram Top Sen c' est l' actuel DG de l' action sociale Aram Top Sen bind note technique jox ko Abdoulaye Diouf Sarr mu ne ko kuréel gii di asam nan leen jox kër gi ci kaw Kaolack delloo leen ko mooy premier point bi ñaareel bi ñu accompagner leen ñetteel bi ASSAMM ñu fexe nañ ko reconnaître d'utilité publique ba tey jii 2021 dossier bi mu ci table Abdoulaye Diouf Sarr. nañ la reconnaître une association publique loolu mooy mooy trois points yi xam ni la note technique bi nga xam ne moom la direction générale bu action sociale bind parce que action sociale centre bi foofu la foofu la nekk. Mm-hmm. dem nañ Kaolack benn atelier parce que centre bi doxul centre bi. dañ ko tabaxandoo ak yeneen centre pour les toxicomanes à Dar à Bambey pour les handicapés à Darou Moussi pour les malades mentaux à Kaolack. Hmm. ñu def atelier à Kaolack man ma teew ci atelier bi en tant que conseiller action sociale keroog bi ma démontré mbir mi tout le monde a compris que centre bi pour mu dox il va falloir que hmm. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr signe un arrêté ministériel boo xam ni daf koy confier ASAM bu ko defee suñ kuréel gi di ASAM mën a exporter centre bi pour le bonheur de tout le peuple sénégalais ba fii may wax ak yéen nii Abdoulaye Diouf Sarr def ci dara léegi nag dañu jóge tabaski Abdoulaye Diouf Sarr man dama koy gën di ko sant parce que bu dee teraanga la daf ma koy defal loolu na leer bu dee teraanga la daf ma koy defal waaye saa yu ma defalee teraanga dama koy naan monsieur le ministre du man teraanga bi gën a ci man <laughs> mooy nga toppatoo dof yi. teraanga bi gën a rëy pour pour man monsieur le ministre. Mm-hmm. mooy nga dimbala ma ñu amee feebar xel. nga taxaw leen taxaw leen. Mm-hmm. léegi euh, pour mu bañ a yàgg gis nañ ne euh, démb wala barki démb euh, da nga génnee li nga xam ne mooy benn article encore benn note. fooy annoncé ne yow dañoo dagg sa salaire ministre de la santé lu xajam sa diggante Abdoulaye Diouf Sarr encore si diggante bi ba muy dagg sa salaire déjà yow ci ban cadre nga amee woon salaire ministre de la santé. man moom Abdoulaye Diouf Sarr moo sàkku ci man pour mu signer ma contrat. moo sàkku ci loolu ci yow moo ko sàkku ci man. Hmm. parce que bi mu ñëwee en 2017 dafa ñëw mu ne dina toppatoo ñam feebu xel di di def ko ñu commencé di atta di ko attaqué. am na sax benn rajo boo xam ne nii euh, bëgguñu woon ma wax ci moom ma jóg dem suma yoon parce que ñun ku mën nekk ku mën ak ku mën ci doon ministre de la santé. ban rajo la. Euh, euh, jaru ko mi ci internet bi bi mu ñëwee Abdoulaye Diouf Sarr biñ gisee ne narul toppatoo ñam feebaru xel ñu ne kon nag nañ jàmmaarloo ak moom biñ commencé jàmmaarloo mu oo ma ne ma kaa ñu nekk benn kaay ma signé le contrat ma ne ko man Issa Mbaye Samb feu Issa Mbaye Samb en 2005 Déthié Diouf bu visa Dé Déthié Diouf ku ne xam na ko ci réew bu parti visa nekkoon conseil Issa Mbaye Samb à Kaolack ñu dem ci centre bii boobu mi ngi en chantier Issa Mbaye Samb mu ne Déthié en dessous on va lui signer un au ministère la santé ma ne ko monsieur le ministre man contrat taxul may toppatoo ñam feebur xel ma ne ko bëgguma contra ñu jóge fa aw ma ko ci boppam Mbaye Diouf son conseiller en communication dugal ma bio de docteur Diack directeur de la santé ne ma Ansou Hormel Consec dafa bëgg ñu signer la contrat ma la man bëgguma contrat di fayeku salaire te sama ñu am feebar xel du leen toppatoo man dimbale leen ma rek ñu toppatoo ñu am feebar xel kon su ma ko bañalee ñi ñëpp man nangul ko Abdoulaye Diouf Sarr mi ma ko proposé en 2019 antuwul en 2020 ak Aloyse Diouf mu ant parce que Aliou Diouf ma koy gëm di sant. moo nekk moom moo dem léegi moom moo dem OMS. OMS nekkoon directeur de cabinet bu xarañ Abdoulaye bu xarañ nag bu bu bu bu mënoon déglu mu ne ma Ansou dañ la bëgg def conseiller action sociale moom Aliou Diouf sax moo tànn action sociale. Hmm. ma ne ko d' accord ma man direction de la santé laa jëm DRM laa jëm mu ne ma non action sociale foofu ngay dem ma nangu ko donc en vingt daaw laa nangu contrat bi. bi ma ko nangoo ñu def ma conseil action sociale may préciser nag ne bañ ma nommee conseil action sociale ba tëb ba fii may wax nii joxuñ ma fa bureau joxuñ ma bureau joxuñ ma joxuñ ma benn moyen de travail mais man loolu yëpp dama ne garaaw li am solo rek mooy nañ toppatoo ñu amee feebaru xel Abdoulaye Diouf Sarr nag. dañ la signaloon contrat nii. ba nii nii nii maa ngi sous contrat. yoon nga contrat yi nii ba nii nii nii. indaale woo ko de kanam. ah indaale contrat bi. Euh, nooy ndiwuma kon. contrat euh, j'ai renouvelé mon contrat daaw laa signé contrat. ma renouvelé ko ren pour janvier à décembre. Hmm, contrat contractuel nga fa. contract man kon agent contractuel la fii may waxee ak yow. mais prestataire de service lañu la defaral wala. ban genre CDI wala CDD wala ban genre contrat. ministère de la santé. Hmm. contrat yëpp benn la. contrat yëpp benn la tous les agents contractuels. c'est des contrat à durée déterminée. Mmh. renouvelable tacitement renouvelable chaque année. Hmm. chaque année le renouvellement est tacite. Hmm, ok donc dañ koy renouveler nii nii nii ba fi may wax ak yow nii je ministère la santé. léegi la moo tax ñu dagg sa salaire. très bien xëy na Abdoulaye Diouf Sarr dañuy tabaski. Hmm. le lendemain tabaski ma ne ko monsieur le ministre jour tabaski Abdoulaye Diouf Sarr moo woote na ne ñëpp jóg mobiliser wu pour la Covid ku nekk dégg nag ñun ñu bind communiqué les sam répond à l'appel de Diouf Sarr ñu ne ko ñun day monsieur le ministre Covid bi ñu ni ñu ciy xeexee mooy ñu fexe ba ñu amee feebaru xel ñu jëlee ci bedd mi parce que ñu amee feebaru xel c'est des porteurs sains foofu foyer la Covid bi dafay làqatu si ñoom boo demee dans tous les pays en France dañu jël en charge les centres domicile fixe ñun au Sénégal avec la Covid on laisse les malades dans les parce que bu fekkee ne ñëpp ngi takk masque ñëpp ngi laal gel te ñoom malade mentaux yi laaluñ gel euh, ñu nekk ci mbedd mi mën nañ am feebar bi te duñ ko dund di ko wàllu nit ñi encore ba ñu ne ko ñun dey buñ sañoo ñu gisee dañ tabaski bi mercredi jeudi vendredi ma xëy ministère de la santé ma ñëw gis secrétaire bi ma ne ko man dey ministre la seet si mu ne ma nee na nga bàyyi ba midi ma daje fa ak sama xarit Jibril honorable député di xarit ci Abdoulaye Diouf saa yàlla def mu génn ñëw à midi secrétaire bi ne ma manam ci am ne ma ministre nee na nga bàyyi ba après midi ma ne ko d'accord ci kanamu Djibril War ma ne ko madame Thiam man ñu amee feebur xel laa bëgg ñu toppatoo leen signé wu ma contrat ici au ministère pour ñu bañ a toppatoo ñu amee feebaru xel mm-hmm. waxal ministre ne ko dinaa xaar ba ngoon bi ñu génnee après mu dem ci madame Thiam madame Thiam dem ci Djibril War ne ko ministre neen après nga bàyyi man ak Djibril War ñu génn ci ba ci hall bi mun na ma Ansu le ministre va revenir il va te prendre il n'ose pas laisser le ministère comme ça vi affaire bi ni mu taree nii mën mm-hmm. na ko man day affaire u malade mentaux yi rek moom yitteel ak suñ centre dialogue bi mm-hmm. mu ne ma ministre nee na Abdoulaye Diouf Sarr waxtaan naa ci moom ci centre bi nee na ansu li muy laaj kenn munu ko ko jox. ma ne ko hmm. la mu ne ma ansu li muy laaj santé bi muy laaj kenn mënu ko ko jox. ma ne ko mais lii pourtant ministre moom noonu lay doxalee parce que moom les médecins psychiatres Marie Khemesse Ngom DG de la santé ak yeneen médecin ñoo naan asam amul droit ci lii feroon nag ma a non naa bàyyi ba ngoon ma ñëw la soir. ay 17 heures madame Thiam ne ma ans ministre nee nga bàyyi ba leen lundi sama xool jeex foofu ma ñibbi la samedi ma publier une lettre ouverte et c'est l'Assemblée qui publie sa, sa, sa lettre ouverte parce que c'est pas le conseiller en ce moment c'est le président de l'Assemblée qui écrit une lettre ouverte au ministre la santé hmm. ne ko ñun de kontaanuñu ñun de mer nañu sa ci sa taxawaay si ñu amee feebaru xel hmm. ñun sax day man day dootuma sax ñëwati ministère tànk yaa ngi foofu. Hmm. lii la jàpp lii moo leen naqari et pourtant après yi ñëw naa euh, woo naa Marie Khemesse Ngom. Hmm. mu ne ma en ce moment un samedi mu ne ma lundi ñëwal CNGE ñu waxtaanee affaire malades mentaux yi ak Covid 19. ma ñëw la lundi ma explique leen ne il faut que CNGE ànd ak ASAM ñu dem ci président Macky Sall. pour une réunion minute pour une réunion présidentielle. Hmm. sur l'errance des malplanto et la Covid 19. Hmm. ma jël copie bi jox ko secrétaire u directeur cabinet bi kon gis ngeen ne man ñu am feebar xel rek ñu ñu ñoo may teel léegi nag loolu loolu moo leen naqari. Hmm. ak sunu combat sunu prise de position ministre bi liñ koy soññ ne ko kay taxaw ñu amee feebar xel loolu moo tax ñu dagg sama salaire waaye du ci wàllu liggéey le DRH. woo naa ko. mu ne ma aw Fall mu ne ma aw ma lu ma la ci wax. d' accord temps yàlla da nga annoncé woon tamit euh, di nga ko porter plainte di nga ko traîner en justice wala asam boog dina ko yóbbu en justice. foo lañ toll euh, dina am wala am. Euh, asam asam dina déposer ñaari plainte hmm. ñaari plainte contre Abdoulaye Diouf Sarr ñaari plainte non non pas parce que dagg na sa salaire. mais parce que toppatoowul. moom ñi nga xam ne dañoo am. feebaru salaire bi leneen la mais Abdoulaye Diouf Sarr en tant que ministre de la santé dafa am obligation. dafa am obligation pour topp toppatoo ñoom feebaru xel tey jii normalement président Macky Sall dafa war a dagg salaire Abdoulaye Diouf président Macky dafa war a dàq Abdoulaye Diouf Sarr ci ministère la santé même bu doon sama sëriñ laa wax bu doon sama papa bu doon sama yaay mooy ministre la santé mu taxawee nii Abdoulaye Diouf Sarr taxawee man a président de la république dàqal ministre la santé bi fi nekk sama yaay la mi ngi tudd nii dàq kon gis nga ne ñun. xam nga Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. bi mu nee sama doom Fatimatu bu sàccee ñu dagg loxoom loolu ay principe la. Mhm. la personne de Abdoulaye Diouf Sarr man Ansoumana Dione dama ko bëgg dama ko naw dama ko respecté waaye ni muy doxalee par rapport aux malades mentaux moo posé problème kenn mosul gis Abdoulaye Diouf Sarr de 2017 à aujourd'hui mosul présider benn réunion laa wax pour les malades mentaux. dana présider ci Covid dana présider affaire vaccin dana présider ci lépp ba mu des. maanaam moom boolewul les malades manto ci ay préoccupations am quoi. boolewu leen ci ay préoccupations moo ne day Sénégal tey seen problème majeur professeur Fatou Sow Sarr ajuma bi passé ajuma bi passé tey la ajuma ajuma bi passé la ma invité hôtel Ñambour ci benn atelier. Mhm. sur la famille professeur Fatou Sow mais bi ma jëlee kardu mais ñoom ñëpp dañoo yéemu. parce que en réalité Sénégal fajul ay doomam yu amee feebaru xel barki démb gis nga Kande bés bu jot laa wax sama téléphone day sonné ci ay cas de malades son chef de cabinet chef de cabinet wu Abdoulaye Diouf Sarr Ibrahima Fall keroog ba may jox secretaire DC note bi ma jox waa CNG daf ma fekk foofu ci secretaire euh, yaw directeur de cabinet bi moom moom moom fekk mais dama ko nuyu mu mel ni ku ma gisul. Mhm. et pourtant moom Ibrahima Fall ay nit woo nañ ko pour seen benn mbokk ba mu feebar xel photo yi daal ko après. d' accord d' accord léegi bi mu ngi ñuy bëgg dab. dëgg lan ngay lan ngay tëjee rek très rapidement parce que li nga wax am na solo. dëgg la je pense que mënatoo fi waxaat loo waxul. dëgg la euh, ñu bàyyi la rek léegi message en tout cas. les Sénégalais may woo sama mag. Hmm. encore une fois parce que man Abdoulaye Diouf Sarr ba fii may waxee nii. ba fii ma toog nii sama mag la sama xarit la ma koy woo moom laa wax ñu toog ñu waxtaanee ak ak yelleefu ñu amee feebaru xel wax naa ko ne ko ñu ne ab Diouf Sarr mooy ministre la santé jël nañ dof ndakaaru yëpp indi leen fii ñu faj leen ba ñu wér delloo leen seen biir ay kër mm-hmm. loolu ndamam la. d'accord rapidement Sénégal ñaata dof lay compter. ëpp na ñetti junni. mais amoo benn chiffre bi exact ñetti junni malades mentaux ñoo nekk ci mbedd mi di errer. mais quinze mille malades mentaux plus de quinze mille malades mentaux. si xam nga ñun ñun ñun errants yi ñu gën a soxal y'a ñi erre quoi ñi erre. y' plus de vingt mille malades mentaux au Sénégal. Hmm. y' plus de vingt mille malades mentaux. Hmm. mais ñi nekk ci mbedd mi. ñi nekk ci parce que sans yi. ñun ñi nekk ci mbedd mi. Hmm. am na ku ñu wane fan yee passé ku dee ci mbedd bi comme ni muus di dee ci mbedd mi loolu ana santé xoolal dof yi di rey seen ay wéjur hmm. ana ministère santé mais dof yaa ngi def ay jéey ci réew mi ana ministère santé boobu il faut que ñu amee feebaru xel Sénégal dafa jot nag laa wax parce que même Covid 19 bi hmm. OMS wax na que dafay tax feebaru xel gën a yokk parce que la santé mentale est affectée par la Covid 19. donc la santé c'est la santé mentale kon mm. il faut que ñoo ngi mm. jëm ci weer bu am solo muy le 10 octobre mm. muy journée mondiale de la santé mentale doon na rafet Abdoulaye Diouf saat bay waaram si ñu amee feebu xel moom moo ci merci beaucoup man dama ci perte merci beaucoup Moussa Soumana ñoo ngi lay jaajëfal di la gërëm ci taamu bi nga xam ne taamoo taamooti nga ko Sénégal euh, pour ñu waxtaanee ñi nga xam ne dañoo amee feebaru xel euh, ñuy gërëm mbokku internet yi di leen dig daje ba beneen yoon ak beneen invité ci beneen jërë ngeen jëf